asalaamualeykum asalaamualeykum wa rahmatullah euh, man la Seydina Ousmane Dramé pour le réveil des consciences euh, dañoo bëggoon a si rek ci nii assemblée nationale bi toogee euh, ma doon laaj ndax nun xam nañ luy député xam nañ luy député ndax député moom mësuñu koo am mësuñu koo am ni Sénégal surooxe ak ni Sénégal màggate ak ni mu yàqoo defe naa bu noonu ay député wala ñu xam sensu député kon defe naa ne problème bi duñ ko am te ma yaakaar na ba nëgë ni xamaguñu lu député mooy lan ma bëggoon nag imaam yii dellu ci alxuraan ndax kat quatre-vingt-seize pour cent des musulmans c'est une forte majorité ñu indil nu définition député mooy lan ndax musuñoo am député musuñoo xam luy député euh, tey bu nee ba jël Coura Macky Coura Macky mii soo xoolee weereem yi xool gémmiñoo gu toj gi xam nga ni kii du nit koo xam ne war naa mën a taxawu ab jullit fenn déedéet lislaam néewul ci moom ndax lan ko xameel ca Amérique mooy président bu góor jigéen yi maanaam seen président d'honneur bépp góor jigéen boo xam ne yaa ngi takk ab sëy boo xool da ci gis kura bépp góor jigéen gi organise ak sabar da nga ci gis kure bépp góor jigéen boo xam ne danga am benn programme ak mënuloo di ko organiser kura ngay jiital tey ku mel nii ku nii ñu bëgg a jël assemblée nationale yóbbu ko fa dama ne aw tiis la dama ne aw tiis la Macky sàll sax bu concentré woo def toute ne investigation ci xale bii waxuma toog ci ab lalam waaye du ko bàyyi mu dugg assemblée nationale. assemblée nationale représentation bi nga xam ne góor jigéen ñi am nañ ko fa moo ëpp doole représentation bi julli di am julli di amuñu benn benn représentation te bu fekkoonte ne teg nañ ko ci yoon ab quota imaam yi war nañ koo am. donte dix pour cent des députés doon ay imaam yoo xam ne ñu leen tànnal suñu bopp ndax kat imaam dafa am solo jëmmi imaam ci mbooloo day mel ni jëmmi alxuraan ci biir mbooloo imaam bu taxawee ci biir mbooloo lépp loo xam ne waaye noruk ci jubadi wala dëngal da gis mu tàmbalee bàyyi kon Koura Macky mii génne ko ci assemblée nationale bi dugal fa imaam Dramé wala imaam Raphaël defe naa ne buñ ko wote woon buñ ko wote woon kuro du fa am place waaye nag réew mi nii rek la mën a demee depuis 1896 ba heure bii franc-maçon yi ñoo contrôler réew mi en 1896 dañ ko installé ginnaaw bi fédère bi taalee Sénégal gépp toj dëkk yëpp ne il va créer un type de sénégalais boor ñu ak le lycée Jules Ferry Jules Ferry ci boppam moo ki tracé le programme d'éducation des sénégalais Euh, may ñaan imaam yi yéene xutba nuy déglu te réew mi noo ko moom te yéen wóor na leen ne seeni kàddu àggul assemblée nationale te imaam bi kàddoom dafa wër fépp wërngal képp fu ne kàddoom dem danga ko fa fekk tey bu demee ba nga xam ne umma islamique bépp góor jigéen yi ci dëkk bi moo leen fi ëpp doole war na xoolaat suñu bopp góor jigéen ñi duma nañu ñaari yoon du ma gu jëkki gis ngeen ko bi ngeen di yëkkati ab bill di ko dugal assemblée nationale pour sanctionner góor jigéen yi góor ñi doon taxaw lànk dafa mujj nu bëgg caa génn sax noonu ñi ko yëkkati woon ndax góor jigéen dañoo lànk ba tëdd ca ñag ba ba pare woon ñu ko tas assemblée si lu ñu def ko fa. assemblée bu bés bii gis ngeen ko amul benn représentation bu fi chrétien yi am chrétien amuñu ab ñu jël kuréel makki di ko jox pour lan place kuréel makki bii dama ne. yabaloon fi ab chrétien wala ñu yabal fi ab imam moo gën ndax diine ji diine ji dañoo war am place assemblée nationale diine ji nga xam ñun ñëpp quatre-vingt-seize pour cent de musulmans ak i chrétien dafa am philosophie bu ne ci noonu boo xam ne war waruñ koo gëstu délégué ay délégation yoo xam ne dañ leen di délégué ñu dem assemblée nationale toogal nu fa maanaam diine christianisme ak diine ji naa diine l'islam waaye ngeen di jël lu mel ni ay kuréel màkk di jël ay sàcc sàcc yoo xam ne wóor na leen ne ah essence bi leen di jox bu ñu assemblée nationale dañ koy jaay def seeni i poos sàcc soo xam ne ah jubuñ sax waxoon na ñàkk jub gi mooy yàlla gin dëkkee kuréel màkk mi dama ne wërta toog ci ab banc jóg ab julli toog ca kuréel wërta toog ci banc jóg kilifa toog ca banc booba waxuma la si sax waaye yu bon yi nga xam ne moom la dëkkee ak xariti góor jigéenam yi kii wërta dama ne nit ab xalifa wa ak kum mën a doon ak ak ba ci taay bi man mii du ma jël loxoom du ma ko jox loxo tey ku mel nii ah, nekk seizième dix-septième ci benn bokk yaakaar xam nga réew mi torox lay def torox lay def waaw ñi nga xam ne nag ci soo Sonko lañ wéeru woon ba doon maire mënuñoo wéeru ci Ousmane Ousmane defar leen dëkk bi yéen a gañe doon maire jóg leen ngeen defar dëkk bi lii Ousmane di woote naan focus 2024 du sotti mukk tànk tànk yéen maire yii ngeen jóg defar seen dëkk yi benn Bokk Yaakaar mi ngi leen di déglu benn Bokk Yaakaar mi ngi ci seen kaw parce que niñ bàyyee woon dëkk bi mu jaxasoo ñoom nee nañ un an buñ delsee dañ koy fekk mu gën a jaxasoo parce que yéen amu leen xaalis te Macky du leen jox xaalis te Ousmane Sonko du moo leen di jox xaalis dama ne defa leen assemblée nationale bu baax ñu dellu si réew mi ci dëgg ay imam toog ñu réglé ko caga ju bon ji yëpp classe kura Macky gi ñu leen génne complètement completement ci système bi yóbbu faji leen parce que ay nit duñ ay nit imam yi kam ne ñor jumaa yi imaam yi ñooy xutba imaam yi ñoo ñu jiite dama ne imaam mooy fonction bi nga xam ne moom la jullit gën a fonk kon assemblée nationale bii vingt pour cent yi doon imaam yoo xam ne kenn di la tànn par politique mais dañ di tànn ci patriotisme dañ ci xam dañ leen di ci ak jubal ak wér ak i seede dama ne fukki imaam yépp bu ñu jógee Louga benn la bu fekkee ne dañoo am xam-xam man dama ne imaam yépp bu ngeen daan wala ñu jóge teel ak fu mu mën a jóge ñoo xam waaye nag ñu mat sëkk ñoo xam ne yàlla tax ñuy wax yàlla leen ñor yàlla leen yëkkati Coura Mbacké mii dama ne dan nangu place bii mu toog jël ñaari imam ñu toog fa toogal fi nation bi ndax kat li ñuy décidé lépp dafa war ko ci alxuraan képp ku bi gémmiñ di wax boo jàkkaarloog imam yi di la déglu di la déglu danga ne tekk ànd ku dal tere nga ko boole ci diine waaw góor jigéen ñi nag duñ dem de góor jigéen ñi dama duñ dem ndax góor jigéen noo ëpp doole réew mi te lépp na sunu càggante la moo tax na war a jóg nag déglu Ousmane Sonko ànd ceeg moom Ousmane nag wax discours bi am na solo trop waaye tournée bii muy préparé bi muy préparé mag sàll boo ko jéemee yàq da ko réccu boo ko jéemee yàq kuram mag yi dama ne xamut dara kii dof la boo xam ne mun su mun a bind jël mbindaan du ma ko jël kii kii dama ne man dama xamul boroom est ndax am na boroom kër andax am na boroom kër ñu jël ko bëggum ko indi assemblée nationale mu yor goon naan goon goon ah, moom xam na luy goon xam na luy goon moom dama ne kan defenti dëgg wax dëgg nii réew mi demee du noonu kan boo ko jóg ànd defar dellu si xel yi ci lislaam Coura Macky mii tey bu fekkoonte ni nit la wala mu ami bokk waroon naa aw fit ñëw ci imam Raphaël ne ko man mii wala imam Dramé mii ah wala mu seet ku mel ne El Hadj Ibrahima Dramé ah mu ne ko sama sama sama la ngi nii ah doo sama morom du ngir sama maas li ngeen xam xaw ma ko cagalaa buy taxawaalu képp Macky Sall dugal ma ci connerie yi. waaye man mérituma doon député boo tax yàlla xaw ko yërëm lu mu néew néew waaye bu ngeen jógul xale yi bu ngeen jógul bàyyi ay kura makki moo doon seen i député waxuma la torox waaye réew mi ñëpp ñun ñëpp sans exception daañu ànd tàbbi sawra ndax kii du nit kon maa ngi jégal bu baax a baax te ñaan jàmm ba ngeen répondre ma ci question boobu kura makki doon député wala ñu dàq ko jël place am dox ab imam lu ci gën jaa ngeen jëf peace and love mala Seydina Ousmane drame bu la réveiller conscience jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf